léegi léegi léegi su ma ñëwee sa diggante ak Moussa Ndoye Moussa Ndoye moom doox dalaa ragal moom. non Moussa Ndoye moom ci boppam seetaan nga interview boobu. fadal moo ñu jël kër Aziz Ndiaye ak Badou xaw ma. non jotuma ko seetaan dama ko xaw a seen. comprendre nga ñu toog mu ne leen carrément sama kàddu laa am soq bu ko neexee bu mu jël benn mbër man moom laay bëreel te promoteur yee ngi si ñu ngi toog di déglu di xaar. sa diggante ak Moussa Ndoye Moussa Ndoye nekk xeexkat teg la ñaari defet Garga Mbossé daan ko. Euh, sa Thiès mi ngay wax ne moo nekk sa xel daan ko mën a jëm si yow est-ce dafa bëgg fu mu fu mu relancer wu waatee. non non Sokh xale bu kenn di relancer woo ci moom Moussa Ndoye la te ñi ko daan ay champion lañ daan ko taxul terewu koo nekk champion ñi ko daan ay. ndaan gis dama gis am na xale yu ko fi dëkk mu bañ a bëre ñoom. nangu bëre ak yow moo tax ma ne est nekkul dafa bëgg fu mu fu mu fu mu yéegaatee moo tax mu ne day na nga bañ a jël benn avant. non moom dafa xam ne buñ bëree rek day neex moom xam ne ne buñ bëree day neex Moussa Ndoye bu jaar gauche rek soo jaar droite ñu duy stade bi mu fees mu ambiance ma ambiance ñu taxaw ci digg géew bi war a def jom loolu. mais mais Sokh Sokh Moussa Ndoye abi sif sa diggante yow ak moom ku ne xam na ne Moussa Ndoye xeexkat la est-ce dina yomb ci Sokh. man da ngaa gën Moussa gis xeexkat bu ma dellul ginnaaw. non bu mel ni Moussa Ndoye agressif laa wax. ñu ko dàq xeex bëri na ak ñoom. comme kan. Boursine bi mooy bëreeg moom Boursine ku ko dàq xeex ci lam mais mais méthode xeex yi ñoo benn. non non Moussa sax du xeexkat Moussa Ndoye bërekat la. Moussa Ndoye bëri la nit ñi xam ci moom Moussa benn nit. mais Moussa boo xoolee combat mook Lac Rose xool combat mook Tonnerre yëpp dafa samp jaaga taxaw. Lac xeex xeex bu tax ñu naan xeex amu fa. dañoo bagaar ñoom ñaar sàndante ay coup rek ba génn saako te boobu Lac parewul lagros Rose abandonné ñu jox ko victoire. yow ku ku sitaan say combat xam ne euh, Sokh dafa bëgg a jàpp ba mu dëgër def épreuve épreuve de force. non man moom làmb lu mu laaj dama koy def. làmb moom jamono ji ñu tool nii surtout jamono ji ñu tool ni li tax ñuy wiir wiiree xam nañ ko man nekkuma fi nag di forcer kenn ndax koo xam ne yaa ko gën palmarès du ma fi nekk di wax ci moom wala may sonn de man ah, promoteur yëpp ngi dox sama combat amul promoteur bu doxul sama combat nekkuma mbër mu combat jafe comprendre nga dañuy ñëw ñu bëre ma bëre ak ñoom bëriwuñu may entraîner rek di xaar ndax man doole ji gënee bàyyi moom xam naa day métti Serigne Saliou xam na ne jamono ji ñu tool nii fulla ak fayda joojoo ma bàyyi ci làmb nekkatuma ci di maslaa ak kenn li liñ gis ba tax ñuy daw lu ko gën a pire moo fi nekk